Nous nañu sen kàddu jëlaat nañu sen kàddu dinañu dox ci processus boo xam que Macky Sall bëgg wala bu bañ dinañ dem ci ay élections. ñu ngi wo ñëpp wa Sénégal yëpp ñu génn wa Ndakaaru ñu dajé dimanche 25 février ci bës bi nga xamné bi ci lañu wara voter terrain xar yalla à midi le ñëpp dajé fofu ñu voter loolu moy voter bi ñuy def askan pour mu imposer au président Macky Sall une date pour l'élection présidentielle pour ñu xam. kañ la ñuy vote ci terrain xaar yàlla dimanche jour vote bi nga xam ne moom moo doon am ñu defal ko ñu ko bëggee ni ko askan bi bëggee jërëjëf wasalaam